bëree génn bokk ci bile activité ñu leen di tàggat ci njariñu dawal velo jamono gi nga xam ne ni àdduna wërngal képp mu ngi jànkonteel ak njeexital yi nga xam ne moo bawoo ci li ñu duppee changement climatique di coppite gii di wéy di am ci alam gi waaw velo ni mu mën a jàppalee euh, nit ñi ci pollution mooy maanaam tey velo dafa doon euh, loo xamante ni boo koy dawal du def du créer du am benn gaz boo xamante ni da koy euh, sànni ci mbedd bi du doon loo xamante ni dina loor keneen te gis nañ ni pollution oto yu màgget wala yu mel noonu ñoom ñoo koy gën a indi léegi ñu bëggoon gën a ñaax ndaw ñi pour xamal leen li nga xam ni moom mooy importance velo dawal velo nekk lu yomb ba noppi am solo lool ci alam gi ambassade. Pays-Bas fii ci réewu Sénégal fas nañoo yéene wéy di gunge élèves yi ci école yi ngir gën leen a yee fii jamono tolloog changement climatique gi. Euh, chaque année ambassade bi mi ngi jàppale ay initiative yu ni mel. Euh, fexe ba nit ñi xam lan moom mooy changement climatique mais que aussi population bi yëpp mobiliser pour euh, pour pour développer ay ay ay comportement yoo xam ne sensible na pour pour pour pour climat. gannaaw nag ba ñu jàngee seeni leçon ci yooyu la coppite di am ci alam gi élèves yi génn tey ci tali bi. di dawal velo fas yi yéene tari li ñu jàng maytu bu baax a baax lii di réchauffement climatique. vélo day permettre euh, améliorer respiration bi tamit day permettre élèves yi bu ñu nekk en. en retard suñuy jàngi école te dina nekk moyen efficace pour la préservation de l'environnement association Giga Initiative di sàkku si kilifa yi jiite réewu Sénégal ñu def ay yoon yoo xam ne vélo yi lañ koy jagleel yeneen activité vélo à l'école dinañ ko amal fan yi ñu dëppmal ak yeneen i daara